ne ña daan ubbi lamb def leen di élément teg ne day kar wàcciwul jaay ñëw nga xalimaam ci la jël wettee ko ñëw ci jaara seen orienté ci kër mi ngi leen boole ànd ak moom dalal ci ñëw nag sëñ Habib moom Boobu Diagne euh, directeur général bu police mu ngi ñu topp moo dend ak yow ngi den ak Ndiaga Diop euh, commissaire divisionnaire classe exceptionnelle Ibrahima Diouf commissaire urbain bu Thiaw moom ci ay kilifaam yu teew mu seedeel leen taxawaayam yaru toon d'abord ndax nit mën naa am responsabilité du yaw mu yaru ñaareel bi ci des mooy nit ku ku mën a jaxasoo nit pare am yëg-yëg ci taxawaay ci dëkk bi ñu ko leen koy wax di leen ko seedeel ci seen kanam yéen ñi ay kilifa xam naa kàddu sëriñ bi dina ci ñëw léegi wax leen ko ñu ngi ànd ak Cheikh Diop commissaire de police moo yore GMI ànd ak Katim Touré commissaire de police chef centre national vidéo surveillance vidéo surveillance assalaamu alayna mu ne assalaamu alayna ci moom ci moom ak responsabilité ak responsabilité wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi salihin ak képp ku mel ni nga war a mel ak képp ku mel ni nga war a mel moo tax booy sëlmal ci julli moo tax booy sëlmal ci julli jàmm ji jàmm ji waxuñu la nga yéene ko sa bopp waxuñu la nga yéene ko sa bopp dañ ni dañ ni la ci sawet ci sawet nga naan assalaamu alaykum assalaamu alaykum keneen ne la keneen ne la assalaamu alaykum assalaamu alaykum génn ñu génn ñëpp nekk ci jàmm ñëpp nekk ci jàmm <laughs> kon yal na yàlla fay. kon yal na yàlla fay leen. yal na ngeen dal ak jàmm. yàlla ngeen dal ak jàmm. ah Tivaouane a ngi nii nag. ah Tivaouane a ngi nii nag. effectivement ci gàmmu la ñu nekk effectivement ci gàmmu la ñu nekk. xalifa bi xalifa bi. dafa mës di am souci. dafa mës di am souci. woo nañu fi benn at. woo nañu fi benn at. def na dix ans. def na dix ans. mu ni Habib. mu ni Habib. ñuy taxaw ci garde yi nekk fii. mu ni ko garde yi nekk fii. trois heures du matin la génn. trois heures du matin la génn. siiwane koñ bi yëpp. siiwane koñ bi yëpp. ba ci jàkk ba ci jàkk ñu ne ma mbaa ñii ñi ngi lekk. mu ne ñaa mbaa ñii ñi ngi lekk. mbaa ñi ngi naan. mbaa ñi ngi naan. ma sëgg rek. ma sëgg rek. ma ne ko waaw. ma ne ko waaw ndax xam naa question bi ciy toog. ndax xam naa question bi ciy toog. mooy fu ñuy lekk. mooy fu ñuy lekk. <laughs> mu ne ma bu ñu xiif. mu ne ma bu ñu xiif. bu ñu mar. bu ñu mar. nañuy lekk. nañuy lekk. nañuy lekk ci li ngeen di lekk. te nañuy lekk nag ci li ngeen di lekk. di naan ci li ngeen di naan. di naan ci li ngeen di naan. mu dem. mu dem ñu teg ci semaine. ñu teg ci semaine. Alxaaji Bachiru Ñaŋ. Alxaaji Bachiru Ñaŋ. mooy sëtu maam Maodo bi. bi bi mag ci sët yi. mooy sëtu maam Maodo bi mag ci sët yi. dund naag maam Hadj Malick peut-être sept ans la. dund naag maam Seydi Hadj Malick peut-être sept sept ans. dem na ba nekk mag. dem na ba nekk mag. ma jékki-jékki rek. ma jékki-jékki rek. ñu ne Pape Bachiru Ñaŋ mooy ñëw. ñu ne ko Pape Bachiru Ñaŋ mooy ñëw. mu dugg ci oto. mu dugg ci oto. nekkate man lay seet. nekkate man lay seet. comme ni ñuy coordonné liggéey. comme ni ñuy coordonné liggéey. ma xam ne man de yow laa doon seet. ma xam ne man de yow laa doon seet. jaamu yàlla yi di gaar man daal jaamu yàlla yi di garde ñoom laay wër ñoom laay wër ba xam fu ñuy lekk ba xam fu ñuy lekk ak fu ñuy naan ak fu ñuy naan loolu moom ma ko waxee ci kër Pa Ali tax nee na loolu moom ma ko waxee ci kër Pa Ali tax loolu dund nañ ko fii. loolu dund nañ ko fii. kon suñu xel. kon suñu xel. ak suñu xol. ak suñu xol. ak suñu xalaat. ak suñu xalaat. mosul jug ci yéen. mosul jug ci yéen rawatina Momar. rawatina Momar. yal na leen yàlla taxaw. yal na leen yàlla taxaw. قد سقاني ما سقاني من كدور في الثرى هذا قلبي بخير القصر بقطرى وصباني قد جفا طيف الثرى dañuy def li euh, pour gën a jegeel police nit ñi donc dañuy def ay poste de police ci quartier yi donc am na Tivaouane juróomi poste de police euh, yoo xam ne def nañ fa jógee ñu ñëw euh, fii ci euh, euh, cantonnement jeunes yi voilà et pour xool aussi ñoom ñu defal ñu exposé wax ñu nan la ñoom seen dispositif nan lañ ko tegee en tout li ma mën a wax rek mooy bi ma noppee def revue bi yëpp am na quand satisfaction ci que disposition yi nga xam ni moom lañ waroon a jël. te kilifa yi ma tudd léegi joxe ko euh, disposition yooyu yëpp jël nañ ko euh, niñ leen waxoon ñu taxawee ko ci sécurité gàmmu gi euh, taxawee nañ ko ñoom commandant d'unité yëpp muy GMI ak corps urbain de la direction de la sécurité publique mais aussi yeneen direction yi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ñëw renforcer le commissariat urbain de de Tivaouane muy direction police judiciaire muy euh, brigade prévôtale muy euh, direction de l'occultisme nga xam ne ñooy wër euh, ñi yor Sénébar waaw donc ñoo ñëpp ak élément sûreté sûreté urbaine yi nga xam ne ñooy ñëw pour wër ñi nga xam ne ñooy Samba yi donc gàmm gi dëdut benn fan rek ndax day am depuis burdu bi bu commencé ci la daanaka gàmm gi di di commencé donc depuis booba ñi ngi indi ay éléments Euh, pour euh, assurer sécurité burdu bi mais aussi dafay opération yoo xam ni mooy tax euh, ñu mën a jàpp yenn samba bu yi ba nga xam ni bu ñuy agsi ci ñetti fan yu gàmm yu mujj yi dina fekk daanaka délinquant yu bari ñu jàpp leen nit ñi nga xam ni ñooy ñëw taalibe yi di ñëw di célébrer yi di gàmm si ci seen sëriñ wax dëgg ñu mën a ñëw ci jàmm mën a gàmm ci jàmm ak xel mu dal ba mën a mën a mën a ñi ñi delluwaat ci jàmm waaw moo tax euh, ni ko kilifa yi waxee rek euh, noonu lañ ko defee euh, dañoo yokk effectif bi nga xam ni moom moo fi doon nekk at mu ne daaw ñu ngi nekkoon ñaari junni ak juróomi téeméer ak yu teg tuuti ren ñu yóbbu ko ñetti junni loolu ñi ci ëpp nag ci ñetti junni yooyu mooy élément groupement mobile d'intervention mooy ñiy sol béere yu xonq yi Ah, ñoom ñoo ci ëpp ñëwul nag renforcer commissaire urbain bu Tivaouane ndax kooku moom moo moom mooy euh, euh, moom moo daanaka mooy coordonné dispositif de sécurité bi yëpp ñii ñëw yëpp moom la ñuy jàppale ci ci liggéey bi ah, donc euh, indi nag jumtukaay yëpp yi nga xam ne daal moom la lañuy soxla ci fu ay nit ñu xaw a takku di daje ndax fu ñu takku di daje dafay laaj mu am accompagnement ci wàllum sécurité boo xam ni di mën a foog loo xam ni ñëwagul ah, loolu moo tax sax ren ñu ñu daan déployer effectif unité yi nga xam ne yi ñu daan déployer ren sax ñu boole ci bip pour prévoir rek nan on sait jamais pour que voilà xëy na yenn ki ñu jël ay matukaay daal pour que dara bal ñoo bett voilà loolu moo tax euh, ren ñu ñu jël yooyu disposition yëpp bi ma defee nag tour bi wax dëgg yàlla def. Euh, lépp am naa euh, satisfaction ci euh, que li nga xam ni moom la ministre bi joxe woon instruction directeur général euh, jot li ma ko ne ma naa ko saytu am naa ci satisfaction que niñ leen ko waxee woon réunion bañ tëndiroon jox leen ku nekk ay mission te ñooñu bi ma ñëwee gis naa ne ku nekk mission yi ñu la joxoon yaa ngi koy yaa ngi koy doxal ñu la ko joxe donc ma leen di ñaax rek ngir gàmm gi suba la bis bi que ni ma ko gisee ni ñu continuer ko noonu ba incha allah bu ñuy gàmmoo ba ca suba sa euh, bu ñuy euh, li ñuy wax tiire bilan bu ñu koy def ñu tiré bilan bu gën a positif attiré naa seen attention bu baax aussi ci ñu gën a euh, wax ak élément yi que gàmm lañ ñiy ñëw ñëpp dañuy ñëw rek di siyaare nañ leen di accompagner di leen guider di leen di di mën leen a permettre li nga xam ne moo leen fa indi ñu def ko ci jàmm ndax ndaje la mbooloo la mais mbooloom jàmm la rek ñii ñëw ñëpp daanaka ñi ci ëpp jàmm rek la ñuy wut ndax dañuy ñëw di gàmmu si ñiy raas raas dem bariwuñu loolu moo tax ñu aussi wut ñoo xam ni ñooñu ñoo leen di eh, ñoo leen di war pour jàpp leen pour permettre ñi xam ni ñoo ñëw di gàmm suñu ja ci jàmm bi ñu defee loolu lépp ba noppi nag dem nañ ci eh, kër xalif bi pour euh, ex euh, wax ak euh, leeral ndawam ki nga xam ni moom la euh, yabal pour mu recevoir ñu leeral ko taxawaay bi polis am ci dëkk bi biñ taxaw ci gàmm bi wax ko leeral ko lépp ak liñ liñ commencé ak li des lépp liñ ci nam waaw mu rafetlu ko it dëgg yàlla wane ni moom am na mbégte am na ci ci ni police taxawee ci gàmm gi ci ba burdu bi commencé ba léegi moom gis na lépp te wax dëgg yàlla gërëm nañu aussi sant nañu ñaanal nañu it ñu li ñu dugg daal ñu yeggale ko jàmm ci euh, ba incha allah buñ gàmm ba ci suba sa euh, ñu mën a tasaaroo ci jàmm ñi fi ñëwoon ñëpp mën a dellu ci jàmm ci seen i dëkk incha allah jërëjëf.